dikkati naa ñi doon lam-laamee ndax dem te dialogue ba bokk cib di lam de turbine yéen a ne ma jël leen siis te ngeen jëlee siis nag déglu leen ma ndax da ngeen dégg yéen a kaay bi média xam ngeen dibéer bi moom Fabrice Ngema Omar Ba la daal di invité TLV toute la vérité Omar Ba nag yéen a kaay bi naan man mooy président wu maire yu Sénégal démb mani la gannaaw ba ko Fabrice Ngema dalalee dafa xam leen ni nag bépp dialogue boo xam ne am na cib la daal di mujjee yéen bi naan man leer na wala leerul moom président bu maire yu Sénégal daal dinay dëggal yëgal ne dialogue bu président Macky Sall bi cib dil la daal di mujjee te force nag cib dil lay daal di mujjee farbang ci réew mi quotidien naan war naa mën a bañ a nekk de ndax dem toog waxtaan pencoo réew mi ma ni la man naa bañ a doonub dil Omar Ba ci tribune yéen a kaay naan kon dialogue laa ni la fu mu amee mujjanteel ga cib dil lay doon Omar naan te coow li li mooy jël président Macky Sall mii daal dina amul droit présenté wu ci élection yi loolooy nag taal réew mi libération yéen a ko déet oustaz Assane bu Sen TV lii la wax oustaz Assane Seck mi ngi ci loxol yoon yéeni kaay mel ni ku naan man dégg nga kay ma ne oustaz Assane Seck dafa xam le ni Ousmane Sonko day doon candidat gagné élection yi wala it réew mi daal di tàkk yéeni kaay bi dama fi mu toll mi ngi ci garde à moo dem demb ba këram sebi xotaan jàpp oustaz Assane roñ-roñeeg moom andi fii ci Ndakaaru turbine yéen kaay ne mani la Omar Ba ni ki démb Fabrice Ngemaate ko invité TLV moom Omar Ba ne tere président Macky Sall mii mu daal di présenté waat ci réew mi loolu nag moom mooy jaxase réew mi ba deret tuuru fi waaye tam réew mi daal di tàkk conseil constitutionnel nag mën na ko tere doon candidat nit ñi nangu waaye askan wi bu ñu ko baare yoon bi moom président ne du fi sampub ndëndam réew mi mën naa tàkk libération yéen kaay naan maan bu mu metti ba ngeen fàtte ne oustaz Assane loolu la wax jamono jii mi ngi ci gardaaw yi critique yéen naan maan fi mu ne daal ay ñooñu président Macky Sall lu dul sampum ndëndum waa ji gisuñu ko ca mbuur moom dañ faa faral fa amal fa ab marche pacifique CRGEM bu mbuur ko daal di amal géej juuf ak ñamu àndal ne sababu marche bi du lenn lu dul sampum ndëndum président Macky Sall fii ak 2024 fi ne nag ña ànd ak Sall dañuy wax ñuy tontu waaye waa mbuur na ñun ñooy wax fi mu ne nit ñi duñu tontu ndënd li kay ñoo koy jëli sampal ko sàll bu bëggee géej juuf naan duñ ca yam dañuy dem ci biir askan wi na ndaw ñi xamal leen ni lool ci mënti waxit réew mi ku fi gën président Macky Sall amul ndax na kila may jàmm tax ba réew mi amub dal loo ko jëndee ma ne la jaru ko géej naan leen yéen ñi président Macky Sall talal loxo dem leen wuy ji dialogue politique bi moo gën ci réew mi El Hadj Dia ambassadeur itinérant ci le point yéene kaay naan opposition bi daal bu leen yóbboo noppalu ndax fi ne la ñu ragalee président Macky Sall sampum dëndëm mooy réalisation yi xam ne Sall def na ko ci mi fukki at ak benn moom président Macky Sall nekk ci boppu réew mi luy réalisation loo xam ne askan wi mën nañ ci gis seen bopp def na ko fi daal dinay defar Sénégal ba mu méngoog réewu nasaraan si te kat lii moo tax président Macky Sall nar leen bàcc bàcc yu métti 2024 te lii moo tax it bëgguñu ndëndëm gii Sall dëgg-dëgg mooy candidat bi Bougane Gueye Dany ci tribune yéen kaay mel ni ku naan leen ba nu yegg ca ndax fi mu ne nag bépp sénégalais benn responsabilité da am sa ndodd bii mu nekk sax mbagg daal di ciy lalu moom moo di nag daal di xeex bi le système keroog ba ko Papa Alé Niang dalalee ci autour du micro moom njiital gëm sa bopp naan dem wuy ji président Macky Sall fi mu ne du yitte wuy ji it jampul fi mu ne la jamp dëgg-dëgg mooy génnee sénégalais ci lëndëm yi xam ne nekk nañ ci xeex président Sall garabu kër gi nga xam ne samp na ko ci réew mi te sénégalais bu ne laa la wax da nga bu responsabilité mooy président Macky Sall ak am daal di able tribune yéen a kaay naan man en la dialogue moom Omar Ba daal ma ngay dëggal dil da caa am Ousmane ci libération yéen a xam nga ña xam ne fi mu ne waxtaan diwaanu suuf ak président Macky Sall xam naa leen fi mu ne dama ni tekk rek tekki sama tànk ci vox populi moom Sonko naan faan xam nga man duma Karim Meïssa Wade xam nga man duma Khalifa Ababacar Sall maam Ousmane Sonko di lu ma négocié wu ma l'enquête ko di jee naan man booba Barthélemy Diaz mi nga xam ne dañu koy jiiñ di ak président Macky Sall day ma ngay xàll yoonam yéeni kaay bi naan man ca taxawu Sénégal ba ci yeewi askan wi jaar ca Pastef moom Barthélemy Diaz fi mu ne daal ma nga naan ràññ Jean Paul Diaz ba naan ñun doomu Ndakaaru daal leen lan la mën a seeteel yow Bart Barthélémy Dias loo ci mënti waxit ndaanaan ku du lin nga Mamadou wan naan da ngeen xamul Barthélémy Dias su ko neexee nekk politicien boo xam ne dina sedd lool waaye défendre ay intérêt bu jotee Bart daal moo ca mën fuuf Yérim sekk naan fi mu nelan bëgg dugal Barthélémy Dias muy xiiroo ak a ŋaayoo ak nguur gi arrangé wu ko tribune yéen kaay naan man fi mu ne xiiroo be ŋaayoo bi moom Ousmane Sonko moo ca nekk acte trois bu désobéissance civile la nekkee fi mu ne nee na woolu gin ko woolu tey ci diggam ak Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ne wuy jiw tey wuy jiw ma ëllëg le quotidien le quotidien mel ni ku naan ko déet moom Ousmane Sonko kay yemul daanaka ci mambay ñang kese nee na dootul wuy jee ci nag yoonu réewum Sénégal Sud Quotidien naan maan moo taxit ñi ngi jëm ci juróom-ñetti fan ci weeru mai boo xam ni maar day taali moom Ousmane Sonko mënees na fa jaar daal di ñàkk bépp sañ-sañu bokk élection ci réew mi les échos yéene kaay naan ko déet fi mu ne kay boo moytul procès bi dañ koy dàq ba jëmmi jamono Sud Quotidien naan maan fi mu ne lañ doon yootal Ousmane Sonko mbaadu ca tab bi moom moo di nag fexe ba Ousmane Sonko du bokk ci élection tribune yéene kaay naan maan en tout cas ñi ngi tàmbalee tiital yeesal askan wi daal dina ñuy wër ndomb réewum Sénégal njaayum carburant bi ñaar fukki fan ak ñaar du am ci réewum Sénégal vox populi naan man Sonko wuy wul rax ci dool yi ma ngay menacé ñett ci juge procureur ak procureur général te naan président Macky Sall moytul sa bopp bul dugal Sénégal ci guuta goo xam ni maar day taali président Macky Sall moomee Walf Quotidien naan demam ba ca Londres wex na xat ndax dañu ko faa yuuxoo ba maar day taali Dakar Times naan man bul sori ndax Abdoulaye Balde ma ngay wax ay keteme Ousmane Sonko naan kon keesu maire sigi coor ba fu mu jaar defal sa bilan yow Ousmane Sonko ñu daal di xam Abdoulaye Balde ci vox i naan ba ma dikkaatee sigi coor sax xàmmeetuma ko sigi coor salte na sigi coor yàqu na yaxeet désordonné na Dakar Times naan kon Papa Djibril Fall candidat la les fa yéene kaay naan kon Déthié Fall it candidat la te naan sénégalais yi ñam leen ma seet ndax fi mu ne Sénégal mooy réew moo xam ne téeméer boo jël fanweer ak ñeent ya ñi ngi ci ndóol goo xam ni maar day taali Déthié naan ñam leen ma Sénégal mooy réew moo xam ni koom gi ñu naan profité wun ci la ñu am ci suñu meññee fi profité wun ci ñam leen ma seet ndax bu ngeen ma ñamee di ngeen xam ne tabax réewum Sénégal moo ma tax a jóg Sénégal goo xam ni ëllëg dund fi daal day neex lool décce naan ma ne sénégalais yi ñam leen ma seet daa ngeen xam ne dinaa libéré sénégalais ci stress social bi ñu nekkee njàng njàng njàngale mi ma daal di koy ñoŋal faju mi yomb lool ci réew mi danaa def Sénégal démocratie boo xam ne daañu séparer pouvoir yi ak institution yoo xam ne république bi dong moo leen di tax a jóg danaa def Sénégal goo xam ne justice ku ci amuk par par loo waaye tam duñ koy dee muy def tribune yéen kaay naan kon boobu chambre de commerce bu ndakaaru opérateur économique yi day ña ngay naqarlu bu baax a baax yorin gu bon gu salte gu ñaaw goo xam ni daal dina cay am le soleil yéen kaay naan kon boobu xëyu ndaw i day mi ngi ci tànk ngir jàppale ndaw yi seen ëllëg daal di ñoŋ lool sunu làmb naan kon boobu président Macky Sall mi ngi ci waajtaay ngir dalal mbër yi ci réewum Sénégal yëpp tribune sport naan kon boobu Real Madrid daal dinay jël coupe du roi Osasuna la daal di talal te Rodrigo moo fa jaar l'observateur naan kon réew mi ñaaw na